Dakar yaa ngi nga am info yu leer ci people les sport politique mbokk internet yi safoo Feeling Dakar TV daleen ak jàmm ci xibaar bi fi ruusee ñeel euh, maître euh, Khoureychi Ba nekkoon nag avocat wu Ousmane Sonko waaye tamit di avocat ki nga xamante ne rek moom mooy euh, journaliste su Kéwoulo boobu la di Babacar Touré moom maître Khoureychi Ba nag dafa daal di xëy rek di ŋàññi régime bi fi nekk di wax ne rek nu leen neex la ñuy daal di def rax ci dool itam nu leen neex la ñuy xoolee opposition bi rax ci dool itam benn décision bu ñu jël rek daf leen di arranger ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy régime bi fi nekk tax sénégalais yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci opposition bi am lu leen naqari lool wax na sax ci li nga xam ne rek moom la ñu refilé woon kii di Juan Branco nekkoon avocat Ousmane Sonko ba tey rek ma nga cay addu di ko naqarlu ak di ko mititlu moom maître Khoureychi Ba yamul foofu nag ma ngay wax rek ci doxalinu Sénégal ak régime bi fi nekk tax ba nag sénégalais yi sax seen i jafe-jafe yokk waaye tamit seeni i mitit yokk ba tax ko gis rek ma ngay ñaxtu ak di jokk ngir bëgg a jëm ci li nga xam xam ne rek mooy jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund moom maître Khoureychi Ba nag ma nga koy naqarlu bokk rek ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy régime bi fi nekk ni ñu jàppee opposition bi maanaam euh, seen bopp rek la ñu jàppee nit seen bopp rek la ñu jàppee ni ñoom ñoo war a def lu leen neex ndax nag ñoom ñoo moom euh, gouvernement bi parce que nag gis nañu fi sax ñoom ñooñu lay bu ñu waree wootee rek dañu daal di woote ca na mu leen neexee waaye nag bu keneen wootewee ñu fexe rek nu ñu ko yàqalee ba ci sax Ousmane Sonko mi nga xam ne moom mooy le chef de l'opposition moom maître Khoureychi ba nag loolooy ay kàddoom ginnaaw rek ab euh, goo xam ne ma ngi koy méttit lu régime bi ni ñu yoree Sénégal jamono ji nga xamante ne rek sénégalais yi ñu ngay ñaxtu ak di wane seenu naqar ak tiis jëm ci régime bi fi ne